certifié umi janka yalana ngur kanjo fa pambe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 mbokk yi lamb jàngi noonu bisu korité ak bu ñu korite ba ca ëllëg sa day faatu Adama Jali lan ngay wax waa Loul Sessène man day faatu Adama Jali maa ngi leen di jox rendez-vous ci dëkk ba ñuy wax Loul Sessène jouri korité bi bu ñu lekkee ganaar yi ba pare rek fa lañ koy reesale ji kontaan naa ci yéen de man day faatu Adama Jali maa leen di jox rendez-vous foofu ginnaaw bi ñu santee yàlla julli di am contentement janoog yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi nag mooy di leen indi li gën a fës si bopp xibaar yi ci noonu damay nuyu ñu ma feggoon rek Mbaye Babacar Assane Waalo Mbaye Babacar bi nga xam te ni mooy le jeune communicateur traditionnel di ko bëggee am contentement janoog moom chaque jour nuyu naa la. waaw Ndeye Mbacke yow yaay la saoudienne noire la saoudienne noire barki démb. Euh, sa sa sa abbaye bi nga def macha allah moom la moom la àdduna di coow yàlla na sa jàmm yàgg ñu ngi nuyu internet yi du nuyu Assane Waalo du nuyu ñëpp ñu ñuy topp ci Leewtoo TV. Mbaye Ndeye Bakke maa ngi lay fay di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV joxaat amaat mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fës ci yéen kaay yi. jeudi 6 mai 2021 journal suñu lamb bu mu xëyee ci xëtam mu njëkk Leewtoo point net ak record ñoom bañ xëyee ci seen xëy xët bu njëkk li nga xamante ne mooy revanche bañ acté diggante Balla numéro 2 le lion de Guédiawaye ak nga xam te ne mooy Gris Bordeaux. Ah. troisième tigre de Fass. revanche ba nag Mbaye Babacar suñu papa Gaston Mbengue moo ko taxawal. décroché na ko ñetti ëtti yéenekaay yi bind nañ ci ñoom ñëpp ci bind euh, nee nan Gaston Mbengue décroché na li nga xamante ne bii moo war a dox ci diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux di combat ba nga xam ne bëre woon nañu nag ñoom ñaar wante ba ñu bëree ki nga xam ne mooy Balla Gaye moo daanoon par avertissement Gris Bordeaux jox nañ ko sens pour mu jàkkaarloowaat ak Balla Gaye dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi mu tëggee combat Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Modou Anta ak Diène amal ko le 4 avril passé euh, Gaston Mbengue daf ci tegoon également combat bi war a dox ci diggante Bombardier ak euh, Bombardier ak Balla Gaye 2 Bombardier ak Boy Niang 2 Issa ak euh, Alioune Seye kii di Farza ak Pakala teg ci itam kii di diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye démb Gaston Mbengue woo na kii di Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux foofu ci Maris tëggal leen seen remake bi comme ni nga ko waxee ñaan ñi nag daje woon nañ le 31 mars 2018 euh, Balla Gaye amoon ci ndam euh, par avertissement Balla dafa amoon deux avertissement euh, Gris Bordeaux am troisième avertissement nii la Gris Bordeaux ñàkkee woon combat boobu. suñu papa Gaston Mbengue nag mu ngi xalaat yóbbu combat bi fii ca Gambia Mbaye Babacar. te noonu nag ginnaaw bañ xaatimee seen contrat ñoom ñaar kii di Gris ak Balla Gaye nag lam njëkk a annoncé mooy gaynde bu xiif la te moom am li nga xam ne mooy juróomi combat daal di koy bëri. Gris Bordeaux feelu ko moom tamit ne ko jënd ba nga ba leerul te nanguwuma ko boolewuma ko ci sama carrière te incha allah arbitre bu suuflee génnaat suñu diggante man ak yow dama lay dóor nga daanu. ginnaaw bi mu amee ñaari euh, cachet moom ci diggante Bombardier ak Boy Niang 2 Balla Gaye doyalagul nee na bu ko Gaston joxoon yeneen cinq avant sax da koy jël waaye nag démb bi ginnaaw bi ñu defee signature ba pare ñoom ñaar ñëpp moom ak Gris Bordeaux àddu nan ci kanam journaliste yi li Balla gay wax mooy nee na cette fois ci comme que dafa daane woon ak ci euh, avertissement cette fois ci dafa bëgg daane Gris Bordeaux toog ci kawam xaar photo comme ni ko Fodé Doussouba doon defee. doon nag ginnaaw boo ko siyaasee combat bi dox diggante rëg-rëg ak nga xam ni mooy guy gi Mbaye Babacar Jolof Njaay di naan ku tëb dal ci xal rek dese nga beneen tëb. tëbin mooy léegi xam nañ ne combat ba incha allah le 29 août lay am diggante guy gi. ak rëg-rëg bu ci yàlla àndee Assane muy combat ba nga xam ne amateur yëpp ñu ngi koy bàyyi xel di ko xaar dëgg la Mbaye Babacar lii démb la xewe woon foofu ci CNG Mawa mi nga xam ne nii moom moo représenté Sénégal Entertainment Group mi nga xam ne nii moom moo taxawal combat bi démb la convoqué woon manageru kii di rëg-rëg di paala Diop ak euh, kii di représentant guy gi muy euh, Djibril Wade démb la leen convoqué ci CNG pour ñu régulariser combat boobu jàpp ko le 29 ñu wax fàttali ne combat diggante rëg-rëg ak guy gi ñoom ñaar ku ci daanee da ngay ubbi sa porte yi da lay ubbil directement VIP da ngay mën a dugg ci ñi nga xamante ne bii ñooy ponkal yi nekk ci làmb ji mën na a nekk combat bu neex nag ndax Ndeye Mbacke wax naa la ko combat boobu dafa bëri coow guy gi ku nekk xam na ne combat am day bëri coow wante Reug Reug tamit nekk mbër ba nga xamante ne bii macha allah mbër mu yéeg la di ñëw mais guy gi daf ko daf ko menacé nag daf ko menacé ndax nee na ko su may bëreeg yow sama benn loxo laay jàppee beneen loxo bi damay yëkkati public bi soog laa yëkkati ba ca kaw dóor la ci suuf kii da rek jàpp ne bu jàppee guy dafay faxas rek jàll guy gi moom doyoo ko seen nga mooy jàll ni nga ko waxee jàll wante le 29 dina leer. mu ngi noonu ñu yoon uh-huh. nag combat bi ñu régularisé ca CNG ba tax na journal suñu lamb daal di xëy di samp laaj Pape Thialis Faye Sylvain sacrifié Boy Niang numéro 2 fils de Dégor ak Tapha Tine le géant du Baol Mbaye Babacar. combat boobu ba léegi kenn xamagul ci ban date la ñu koy bëree. suñu làmb tey dafa xëy samp benn laaj mu ne est-ce que promoteur bi Assane bëggul sacrifier ñaari mbër yi ndax avance bi yàgg na ci seen loxo ba léegi xamaguñu kañ la ñuy bëri. dëgg la lu tax mu wax lii mooy que ne dafa gis ne journal suñu làmb dafa gis ne week-end yëpp vingt cinq mais ba vingt 29 août. weekend yëpp dañ ko euh, jël léegi li fi des pour Thialis moom mooy que mu tëgg benn jour ouvrable wala mu délocaliser combat bi yóbbu ko ci région bi journal bi nag itam nee na euh, Thialis Pape Thialis Faye régularisé gul combat boobu waaye nag mi ngi doxal programme am ci lutte simple ndax tëgg na benn gala Joal tëgg na benn gala fii di Ndangaan Sàmm te war a mi ngi war a jëm le jour de la Korité fii di euh, Loul Sessène. est-ce que nekkul kon promoteur bi daa bëgg daw dem ci bëre simple bi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mu ngi nekk mbër ba nga xamante ne bii ci début carrière ñu bëri dañoo am ci moom yaakaar mu doon doxal di bëre di daan wante Assane li ñu nemmeeku ci li nga xamante ne bii mooy combat mi mujj Ndeye Mbacké ay défaite la ci jëlee moo tax mu ne espoir ak désespoir. dëgg la mbay Babacar Sa Thiès dafa démarré ak euh, benn alire bu euh, am doole dafa dajale neuf victoires euh, ci premier combat mi donc jaaxal waa lamb yëpp mais par la suite dafa commencé di am ay defet ndax Malick Niang daf ko daan mu teg ci également Boy Niang daane ko pour une deuxième fois looloo tax dynamique bi mu nekkoon mu perte ko journal suñu lamb ne est-ce que espoir bi ñu amoon ci Sa Thiès ba muy démarré ce que espoir boobu yëpp mi ngi fi ba léegi. moo ngi doon nag même date même parrain Kiri Jax ak ki xam ne mooy Jamaïcain dañu tase fee le 16 mbay lan lan lañ bokkaat toujours boobu. ñaar dañoo mbëkkante dañoo mbëkkante ci li nga xamante ne bii mooy benn date la ca gën a doy waar mbëkkante waat ci benn parrain mbëkkante waat ci benn dëkk ku ci nekk. le 6 ku ci nekk le 16 août nga bëgg a tëgg Fatick jël drapeau ba tudde ko Matar ba mu nekk la nga xam ne Assane lu ñu war a càmbaraat la. dëgg la Mbaye Babacar dañu mbëkkante ci même date le 16 mai mbëkkantee ci même dëkk muy Fatick. mbëkkante ci même mise muy 3 millions mbëkkante également ci même parrain muy Matar Ba waaye kii di Jamaïcain ban ko laajee daf ne moom depuis le 6 avril 2021 a adressé na benn correspondance ki nga xam ne nii moom mooy directeur stade bu Fatick wax na ko également kii di président CRG bu Fatick ñoom ñëpp annoncé na leen événement bi te ñoom d' accord ci d' nan nañ ci ñu fàttali ne ñoom ñaar également daje nañ mardi bi passé ci ministère des sports pour wax ko Matar Ba waaye ñoom ñaar ñëpp kenn ko fa. ñoom ñaar kenn gisu ci ministre bi. Mm-hmm. ayca mu ngi noonu nag la ca kanam raw li gëpp ca noonu ba yaa ay léebu lañu. pire <laughs> mooy. yow yow lébu nga wala lan. man ah, waaw bu xees. ayca <laughs> kon. kii di gàmmu gee numéro moo koy fecc mbay bàkk di bàkk ba nga xamante ne bii bàkku lébu yi la ay lébu lañu piir ma nga koy bàkkoo wante ma nga koy fecc wante ma ngay waajal kombaam. ak ki nga xam ne moom mooy soq bu xam sa cosaan asan dëgg la Mbaye Babacar combat boobu ñu ngi ko prévoir le 6 euh, juin mu war ci jàkkaarloo ak sox mi nga xam ne ni mi ngi ci xam sa cosaan ah. journal suñu làmb nag nee ne gàmmu gee 2 mi mi ngi ci nekk di mi ngi ci benn dynamique bu am bu am doole bu neex ndax dafa jógee ci 3 victoires de suite dafa daane Pape Ndoye Tafa Leer ak Colifay de war a jàkkaarloo ak euh, kii di sox le euh, juin waaye nag nee ne ci carrière jot na am comba combats 2 défaites ndax daan na Boy Mandione Tyson 2 euh, daan kii di Boy Niang Junior euh, Ndo euh, Ndoy Laxas colonel Cissé Ekon Guy gi numéro 2 Ñaas Ñaas Pap ndooy Tafa Leer et ñaar ñi ñoo ko daane kii di général ak Modja. daanaan la kon. mu muy noonu na ginnaaw yàqu-yàqu teef ba am ci arène nationale Mbaye Babacar travaux defaraat ko nag ñu ngay waaj a commencé. ma lay waaj a ñii di waa ARELS ànd ci ak waa CNG fas yéenee defar 16 ya nga xamante ne bii yàqu woon na foofu ca euh, arène nationale wante ba ñu xaymaa 16 xaw naa takku nag. tolloon na ci juróomi téeméeri seize ak fukk ak ñaar. dëgg la Mbaye Babacar ARELS moom mooy association des responsables des écuries et écoles de lutte du Sénégal ñooñu ñoom ñoo en de dañuy réparer seize yi nga xam ne nii euh, waa supporters yi dañ ko yàqoon le dimanche 11 avril bële passé ñoom nag nee nañ yi ndax léegi mu démarré ndax démb dañ doon def benn réunion ak euh, commission règlement et discipline bu CNG bi ñu génnee la pate seen jël kàddu ne travaux yi léegi euh, mu démarré travaux yi nag ñi ngi war a réparer 512 seize ndax le 11 bi passé 213 16 la gars yi mais avant boobu 299 16 yàqoon nañ ko donc total muy nekk 512 16 euh, ñu fàttali ne travaux yi waa CNG ak waa ARELS ñoom ñoo koy bokk CNG dina jox 400000 waa ARELS pour ko ñu mën a euh, réparer euh, yàqu-yàqu yi fa amoon. macha allah mu nekk initiative bu rafet. Modou Lo Papa Sow. Franc ak nga xam ne mooy Garga numéro 2 ginnaaw ba ku ci nekk engagé am combat. journal ba la mu xam ne mooy Gora Sock le grand oublié du pour cent pour cent parcelle la ñuy tuddee seen bopp ñoom mbër yooyu nga xamante ni bii ñoom ñooy takkee ngemb parcelle wante comme ni nga ko waxee mbër yooyu nga lim ñoom ñëpp am nañu combat wante ki amagul combat nag te soxla combat kooku mooy góor a sook Assane. Gora Sock kot Gora Sock rek moom moo amagul combat ci 100 pour cent parcelle 100 pour cent parcelle bi nga xam ne nii kii di Modou Lo moo ko composé war ci dajeek ak Ama Balde Papa Sow war a daje ak Siteu Franc war a daje ak Tyson 2 Garga 2 war a daje ak Mama Lamine 2 ñii ñëpp am nañ combat mais Gora Sock rek moom moo amagul combat ci seen groupe bi nga xam ne ni ñoom ñoo ànd. kon na ko promoteurs yi bàyyee xel jox ko avance ngir mu mën a waajal boppam mën a bëree moom tamit. Mm. waaw wax nga ko sànq mbër. dangay ngay am caay mbër ba pare xajam ma nga noona ca la bokk. Gora am nga beneen adversaire maa mooy dëgg ca loolu nag la ñuy ci xibaaru làmb mooy lutte sincère ka fa nar a dëgg nag mooy Leewtoo production ginnaaw ba mu demee fii di di koy toj. dew naa nar a nekk spécial ndéwénal bu duun pour waa Loul Sessène Leewtoo production wax nga ko dafa dem Ndangaan toj ko jóge fa dem fële ca dafa dem euh, Joal toj ko dem Ndangaan euh, rajaxe ko bu ñëwee fii ci Loul Sessène xam naa dañ koy dañ koy wàcce ba zéro degré comme noon nga noonu la ko xele yi waxee wàcce ko ba zéro degré incha allah bu ci yàlla àndee muy ndéwénal ba nga xamante ne bii Ndeye Fatou Adama Jali moo cay ànd ak Kafaal. dëgg la Mbaye Babacar Leewtoo production mi ngi démarré a à Joal le 27 ak le 28 mars bële passé deuxième journée mu def ko foofu ci Ndangaan Samb le 12 avril donc troisième journée mi ngi ko war a def nag fii ci Loul Sessène kañ le jour et la le lendemain de la Korité euh, mise u un million 500 la fa teg pour mbër yi ba pare Adama Jali ak Kafal ñoom ñoo war a animé gala boobu. quatrième journée am ñoo war a dem ñoo war a dem Linguère. waaw war nañ fa dem nag. non <laughs> Diourbel lañ jëm man maay xaajal ayca loolu mm, xanaa am mbégte ak contentement bu baax a baax a baax jaajëfal suñu mbokk yëpp yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di lay ñaanal jàmm di ñaanal équipe bi yëpp parce que Leewtoo TV ni ma koy waxee famille la Leewtoo production famille la ngi fi nekk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ambiance bi ni muy demee yal yàlla doolu jàmm. Mm-hmm. ne Mbacke di lay remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier waa Linguère Yacine Fall équipe bu Leewtoo TV yëpp. di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. muy noonu nag comme ni ko Mbaye waxee rek fii famille la. ñun ñoo nekk fii di wax ñu ngeen di gis. waaye ñi nekk suñu ginnaaw bari na ñi tax muy yemb. te su ñu gisee lépp rafet ñoom la damay gërëm di laal Mansour Fall kontaan ci moom loolu Bamba sama papa di mention spéciale maa ngi lay sant di la gërëm Yacine Fall sama caméra woman bi. Kébé sama monteur bi sama infographe bi yow loo deful rek nee la bëgguma. moom bi prudence 100% assurance loo daw ma ko def. sama xeese booy bi ki nga xam te bu ñaaw bi nee naa leen kooku mooy Aïda Diouf joxoon ñu ko bàyyi di la bëggee bu baax a baax matu plaignante bi kontaan naa ci yow lool. bàjjen bàjjen matu. bàjjen matu kontaan naa ci ci moom kawaram booboo bi nag di Pape Thialis Faye di borom kër gi. Mhm. maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm ju bare bare. nee na teg la bu jubee te daanuwul. ba jiitu moo dëngul. macha allah ma nga noonu nag bu baax leen jox rendez-vous suba incha allah di leen ko sàkku ci yéen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 Djilass wante na kan mooy way lamb ji kooku mooy neexal lamb yi la grande diva Ndeye Fatou Adama Jali ngoom mbokk yi lamb jaa ngi noonu bisu korité ak bu ñu korité ba ca ëllëg sa Ndeye Fatou Adama Jali lan ngay wax waa Loul Sessène man Ndeye Fatou Adama Jali maa ngi leen di jox rendez-vous ci dëkk ba ñuy wax Loul Sessène jouri korité bi bu lekkee ganaar yi ba pare rek fa lañ koy reesale ji kontaan naa ci yéen de man Ndeye Fatou Adama Jali maa leen di jox rendez